jokkoo ak Ndoye ndax dafa am benn vidéo xëy na gis ngeen ko sax d'une minute trente qui circule depuis hier dans les réseaux sociaux benn waay daal euh, di yàq ngën ji mbindeef lu mel ni xeme xam nga daaw amoon na fi xam nga daaw amoon na fi daaw jéeg amoon na fi lu mel noonu waaye boobu de ay saay-saay yu bëggoon créer comme situation bi amoon Mali nga Mali au mois de mai 2019 les mouvements djihadistes nga xam ne ñooñu ils son contre l'islam confrérique dañu jogoon non seulement di jàpp ay ilimaan di leen capturer waaye dem ba Tombouctou bi nga xam ne c'est une ville sainte am na mausolée ay nitu yàlla yu bari yu tëdd foofu ñu dajj sëkk yi dajji mausolée yi génn bàmmeel yi sànni ci biti waaye nitu yàlla kenn du ko ñàkkee teggin moo tax xëy na ñoom bu ñu fi nekkoon du leen gënal ndax ay nitu yërmande lañu waaye seen ba moo foor donte le seen jëmm newu fi ba yaa ngi fi alors euh, malédiction moo mujj xëpp seen kaw ndax dëkk ba dafa jaxasoo ba indi fa benn guerre ethnique entre bambara et pël yaay 134 morts alors euh, destabilisation boobu nag départ bi moo doon ñàkkee teggin kilifa diine yi di leen saaga ay ndey ak tout ça alors lu mel ni dafay amoon daaw jëmm yu day ni Bamba bàyyi ñas Niass Baye Laye audio yëpp joxoon nañ ko ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye ñu di leen yàkkaloo xam ni teggin mayul sax ñu di ko répété fii am na ñuy jàppoon nag état bi tamit daal di génn ay loi gën a dëgëral daan yi gars yi calmé mais ren li ma doon njokkoog ndoyu baan c'est dix mille fois plus grave parce que bi la ñuy saaga moo tax on est de tout fair pour que vidéo bi bañ a tas lu bari ci réseaux sociaux yi ndax euh, am na ñoo xam ne comme yéen bu ñu saagee yonent bi doon tele bëgg ngeen yonent bi mais di ngeen ànd ak seen sago am na ñoo xam ne dañuy xaalu attan <coughs> nañ te def sa musiba voilà kon nag man on est de gérer ça avec euh, beaucoup de diplomatie moo tax damay commencer d'abord jéggalu ndax looloo ma téye woon ci kaw dama doon jokkoo ak ndoyu baan ñu seet ni ñuy gere affaire bi waaw comme ni ngeen ko waxee dëkk bi dafay traverse temps yi une crise des mœurs extrêmement aiguë man fàttalikuwuma fu ay dégradation des mœurs conjuguées lesbienne homosexualité mariage gay yëpp ci benn semaine bi kooku fàttalikuma fu ma si am ci Sénégal waaye nag Euh, tubaab dafa ne il y a pas de fumée sans feu te lii am barke dem euh, Mermoz samedi le 17 su ma yaboo nekk c'est la continuité de la culture d'impunité ci scandale homosexuel bi amoon Kaolack le vingt 25 euh, décembre 2015 <coughs> xam nga at moomu yen ñëpp yéen a ngi koy fàttaliku en 2015 suñu borom dafa defoon mbir mu doy waar. xam nga suñu mbokku catholique yi dañu am le calendrier grégorien qui est un calendrier fixe parce que mardi gras toujours chaque année même jour la Pentecôte même jour la Toussaint même jour la Ascension et cetera mais ñun jullit yi dañu am un calendrier hégirien nga xam ne c'est un calendrier lunaire qui tourne moo tax tabaski daaw ak bu ren duñu bokk dat gàmmu daaw ak bu ren duñu bokk dat yàlla dogal 2015 suñu mbokk catholique yi comme que seen fête de Noël mësul changé toujours c'est le cinq décembre di màggal juddug Seydina euh, Insa ibnu Mariama Jésus Christ yàlla dogal nag suñu calendrier di tourné ba gàmmu 2015 bi tombé aussi le vingt cinq décembre mu nekk ñaari xew-xew yu rëy jullite catholique yëpp di ko rafetlu ñii di màggal juddug yonent yàlla instant le 25 jullit yi tamit di màggal guddik Seydina Mohamed le vingt cinq alors. lobby homosexuel yi parce que lu ñu def rek c'est calculé bu ñuy tooñ c'est calculé bu ñuy fule au pied nos symboles c'est calculé lobby homosexuel yi tànnoon exactement la lui du 25 décembre 2015 pour célébrer onze mariages homosexuels dans un lieu aussi symbolique que euh, le lycée Ibrahima Diouf de Kaolack nga xam ne kilifa yu bari fa la ñu génne école et sur une terre aussi bénie que fii cheikh al islam Maulana El Hadj Ibrahima Niass loolu tooñ la moo tax dinaa faral di wax a nos amis droits de l'hommiste yi ñuy reprocher ñun Jamra d'être trop rigoureux à l'égard de ces adeptes des déviances sexuelles naan ñu waaw c'est des euh, minorités sexuelles da ngeen war def preuve de tolérance man dama leen di faral di wax naan d'accord minorité dañu mais minorité du tooñ majorité ndéem da nga leen di yedd nee leen minorité du tooñ majorité alors bref ñu daal di def toj-toj boobu fekk na ci événement boobu ñun Jamra on avait les mêmes informations trois mois avant que information yi commissaire Bokar li gardé woon par derrière lui ñu ngi koy rendre hommage au passage parce que à l'époque defoon nañ benn communiqué pour saluer sa perspicacité ndax ba mu jotee information yi mënoon na përëx përëx Euh, di jaay jàmbaar góor jigéen ñi teel ko yooyu rek changé seen agenda daw waaye dafa mel ni ku yëgul dara bës bi di approché bés bi di approché yemul ci loolu mu daal di tàggat kenn ci ay ndawam mu infiltré association homosexuelle yi doon bëgg organiser mariage kooku di ko rendre compte régulièrement ba mu xam place bi xam jour bi xam heure bi ba vingt cinq jot rek décembre à l'heure indiquée ci école Ibrahima Diouf bu Kaolack ba gars yi dugg ci hangar bi parce que nañ sax dañu corrompre gardien bi bi gars yi duggee ci hangar bi ba tëj bunt bi ba tàmbali seen yu bon commissaire bi joxo signal rek ñu daal di def assaut dajj bunt bi rek bett leen sur les faits parce que loolu la code pénal wax l' article 319 nee na interpellation bi juridiquement balaa muy valable parce que amuy on m'a dit que nee nga da leen war a jàpp sur les faits c' est ce que le commissaire jàpp leen sur les faits yem si waaye bi mu leen di laata livrer procureur parce que jot naa ci jàpp vingt quinze la si jàpp mais am na vingt yu daw xëy na il avait pas suffisamment d'hommes bi mu leen di laata livrer procureur joindre na ci pièce à conviction yi mu fekk sur place fekk na fa ay robe de mariée ay bague de fiançailles ak yeneen affaire yu ñàkk jom <laughs> ay préservatif ak ay lubrifiant ndax boo ne déviance sexuelle rek jeexal na wax daa di paqueté boole livrer leen yéen ñëpp vous avez été témoin de la scandaleuse libération de ces homosexuels deux jours avant deux jours après xaw ma trois jours après ñun ñu def déclaration interpeller le ministre de la justice Sidiki Kaba la woon à l'époque mu tànqam lu ñu après la presse l'a interpellé à l'occasion d'un événement bu mu doon présider ne ko lu tax ñu bàyyi leen alors que le commissaire Bokar Ly avait réuni toutes les conditions juridiques pour que justice mën a établir seen culpabilité le flagrant délit et les pièces à conviction lu tax ñu bàyyi leen mu ne wooy euh, parce que dans le code pénal l'article 319 que vous évoquez ne parle pas euh, euh, euh, euh de manière explicite d'homosexualité l'article 319 parle d'acte contre nature alors ba mu defee loolu ñun ci la ñuy dem café de pour lui porter la réplique ba pare tontu ko ñu ne ko monsieur le ministre werante amul ne yow yaa ñu ëpp ay sax ñun ay ndongol daara rek lañu ay taalibe yu xeebu werante amul nekk ci un avocat international mais nous vous mettons au défi de nous démontrer que l'homosexualité n'est pas un acte contre nature mënoo ko démontrer ndax le législateur dafay liggéey dans la même logique que suñu borom pour prendre un exemple assez élevé buy joxe say Euh, recommandation et ses interdits dans les livres saints boo xoolee par exemple suratul àll imran ak yeneen saar suñu borom di ci xaramal sàngara ak suratul am imran surtout bi muy def sàngara ak jeu de hasard ci même niveau de bakkaar il a parlé de innamal xamru wal maysir loolu la suñu borom wax donc xaramal na sàngara parce que dafay texali doomu aadama ak sagom loolu rek la wax yem ci waaye nekku fi naan tere nañu euh, cannabis euh, mu tuddati chanvre indien hashish whisky bière euh, opium <laughs> morphine héroïne bu ko fi nekkoon di lim mën na jeex mën nañu fanaan waaye dafa wax ci alxuraan ne lépp luy tax di luy teqali jaam bi ak sagoom xaraamal nañ ko point waa le législateur a raisonné de la même façon moom tamit article 19 ba mu koy nas nekku fi naan aaye nañu homosexualité lesbianisme mooy góor jigéen yu jigéen ñi euh, nécrophilie mooy góor jigéen yi nekk ba guddi ñu neexal gardien morgue yi di tëdd ak néew yi zoophilie mooy góor jigéen yu vicieux yi di dem tëdd tëdd ak ay mala yooyu yëpp duggul ci détail yooyu dafa ne article 319 condamné na les actes contre nature point alors kon nag lay la woon boo xam ne waxi ku daanu si saret la waaye ba tey tontuwuñu nee na ko démo ñu ne ko démontrer ñu dañu bëgg nga démontrer ñu que l'homosexualité n'est pas un acte contre nature mais ba léegi ak li muy bari diplôme droit yëpp duggul ci doobaa bi dafa daw génn alors ñu leen ñu libéré rek Jamra consulter suñu avocat maître Khassim Touré pour que ñu constituer partie civile comme on l'avait fait euh, pour le, le, comment dirais euh, discothèque ba nekk euh, Mboro te doon former des lesbiennes euh, di leen defloo ay striptease Xaasim Touré moo defaroon dossier ba ñu am ci ndam procureur tëj place ba jàpp tubaab ba ëmbal ko ay bagages am dàq ko génn ko senegal jëlaat même avocat bi léegi ñay jàppale góor jigéen ya Kaolack yëg ne Jamra ut na avocat ñu daal di def des pieds et des mains utal leen ay visa am na ci ay femmes yu siiw ay opératrices économiques yu jaay seeni takkaay or utal xale yi visa passe argent de poste ñu dugal leen ci avion ñu rawale leen génn leen Sénégal ñee ngi Canada ñee ngi Belgique impunité boobu le 25 décembre 2015 mooy jur impunité bii bërkaat yi dem le 17 le samedi 17 octobre fii ci euh, Sacré-Cœur Mermoz te bii du 11 góor jigéen de comme Kaolack vingt cinq góor jigéen la ça veut ñu ngay monter de grade rek vingt cinq góor jigéen ñëw di takk sëy état baa ngi seetaan lu garaaw parce que mbaaw neuf la ñu woon Kaolack onze Mermoz vingt cinq bu ñu sàgganee lobby yi dinañ leen jox doole jox leen fit ba dinañuy xëy takk baas ci diggu ndakaaru di fa gàmmu gàmmu góor jigéen ci foofu lañ jëm alors fii aussi commissaire wu jëppal euh, euh, def na même njàmbaar que commissaire wu Kaolack mu di soxna Aïssatou Ka ñu ngi koy rendre hommage jigéen la waaye jigéen ju mën góor la parce que moom elle a fait preuve du même professionnalisme jotoon na information bi comme ñun dafa ànd ak sagoom ba le samedi 17 à 4 heures du matin ci la ñëw dajji bunt bi ñu bett leen sur les faits moom tamit am na nag ku ne bëxën ñett daw bàjjan ba dafa daw benn euh, acteur euh, psychosocial bu ñàkk jom moo fa indi préservatif yi moo fa indi lubrifiant yi moo fa indi fond de teint yi ak pose xef yi yu bon yëpp moo ko fi indi presse bi nag dafay juum ne c'est un médecin yéen la ñuy tooñ médecin yi di tilimal seen corps de métier c'est pas un médecin c'est un acteur psychosocial buy liggéey ci benn hôpital public très célèbre de la place ñu bañ ko tudd pour bañ a ternir l'image de cet hôpital waaye nag di ngeen dégg ci fan yu néew police dana ko jàpp parce que la police a toutes les informations alors kooku tamit def li charte yi wax flagrant délit ba pare dajale na ay preuves muy préservatif yi di euh, lubrifiant yi ak yi ma tudda léegi les produits cosmétiques féminins mais surtout rassemble na des dizaines de kits VIH sida loolu il faut que nit ñi xam lan la xam ngeen feebar bi ba mu feeñee au début des années quatre-vingt ñi mu gën a nennu c'est la communauté homosexuelle te dégâts yi feebar bi def dans cette communauté rek ku ci bàyyi xel doy na la waaraate ndax at euh, ci ci euh, ci ci explication niñ ñu ko mën a waxee moo di euh, organisation mondiale de la santé dafa délivrer à l'État du Sénégal un satisfecit ci ni ñu maîtriser l'évolution de de la pandémie ndax yàlla dogal na Sénégal dafa am un de meilleurs taux de prévalence ci jàngoro bi boo demee ay Rwanda ay Burundi taux yu jéggi dayoo nga fay gis vingt cinq pour cent trente quatre pour cent de sidéen mais fii nag yàlla baaxee ñu ak yiw gi ne ci Sénégal éducation bi diine ji yàlla def na amuñu sax un pour cent on a zéro virgule sept pour cent mais ba gouvernement Sénégal à travers le CNLS le comité national de lutte contre sida jël communauté homosexuelle sénégalaise ber leen testé leen le taux de prévalence et de 27 pour cent autrement dit téeméeri góor jigéen boo jël fii ci Sénégal ñaar fukki ak juróom-ñaar am nañu doomu jàngoro bi kon ñooñu c'est des vecteurs de propagation di sida ëpp nañoo bàyyi ñuy tasaare ci réew mi di di tasaare feebar bi. bref yooyu yëpp la euh, commissaire euh, Aïssatou Ka dajale jébbal ko procureur ak ñi ñi jàpp procureur denc leen ba démb ci àjjuma ji ci lañ leen atte voilà bañ leen atte nag tappale ba amoon Kaolack ak tappale ba amoon mbaaw fii ñoom góorgóorlu nañu parce que Jamra a contacté tous ses alliés au niveau des organisations islamiques pour qu'on fasse preuve de vigilance et pour que ñàkk fayda ba daloon état du Sénégal en 2009 bañ ñu dalaat la fa xewoon gis ngeen ko parce que dañ leen jàppoon en flagrant délit mbaaw ñuy takk sëy boobu sax sa mbedd ma lañ ko doon takk ànd ceeg réewande gu mat sëkk nga gis bàjjeen yeeg ñi di indi warugar yeeg ñuy dammay loxoog ak di xefa kii di kii bañ ñu leen jàppee gis ngeen ne trois jours lañ ci teg ñu libéré leen boobu organisation islamique yi dañu mer particulièrement Jamra particulièrement association bu imam Mbaye Niang ak Ali Imran bu oustaz Aliou Sall ñun ñoo organisé woon marche foofa ca grande mosquée moo doon départ ba police ñëw fa sax gaañ fa seen benn naataango ñu di ko wax Ramatulaay euh, caméraman la woon fële ca rajo Dunia alors ba police ba ñu libéré ñooñu boo gisee li tax bi yoon ci scandale homo mariage homosexuel bu euh, Mermoz bi Jamra teel a alerté c'est parce que ba ñu libéré les homosexuels de Mbao Jamra dafa def enquête pour xam libération bi fu mu jógee parce que personne ne voulait parler xam nga libération scandaleuse bu euh, Kaolack bi sax Sidi Kaba s'est expliqué nee na pour moom euh, mot homosexuel newul ci code pénal waaye bële kenn nanguwul wax ñun ñu enquête ko Et on avait publié nos résultats à l'époque, et qui se résume à ceci, que c'est la France qui avait tordu la main au gouvernement du Sénégal. Et les preuves sont toujours disponibles dans Internet. da ngeen di def 3w point gov point sn c'est le site du gouvernement français boo leen ñëwee ba janvier 2009 ngeen consulter les communiqués du conseil des ministres français di ngeen ci gis benn boo xam ne le président chef de l'état français Nicolas Sarkozy mooy wax ni la France exprime sa vive préoccupation après l'arrestation de ces jeunes sénégalais qui n'ont eu que le tort d'assumer leur orientation sexuelle loolu ingérence la ba noppi Roselyne Bachelot ministre de la santé de l'époque daal di ko feelu dal di joxor bi baaraam Bernard Kouchner ministère des affaires étrangères ne ko monsieur le ministre yaay suñu porte-parole à l'étranger ñu ngi lay ñaan nga user de votre influence wax les autorités sénégalaises nañu bàyyi xale yi ñu tëj et enfin dernière ingérence mooy le maire homosexuel de Paris Bertrand noue moom ngóor jigéenam nëbbu ko moo taxaw ci chaine de télévision bu ñuy wax m am ku mu présenté ne ñaar ñii samay far lañ moom ñaari far la moom ku ne moom fa ñàkk jom yam fa la fa la fa la fa la tàmbale moom moo bind lettre Bertrand Delanoë le maire homosexuel de Paris à deux maire de ville ici au Sénégal am nañ copie yi ci ndimbalu yàlla ne leen en ma qualité de président de l'association des maires francophones maa ngi leen di ñaan yéen le deux maires sénégalais la ngeen wax président de la république na bàyyi góor jigéen ñi C'est l'ensemble de ces pressions conjuguées qui ont abouti à la libération scandaleuse des homosexuels yi doon takk say foofu ca mbaaw ci kaw tooñ ci kaw jalgati yoon ci kaw maa tey moo tax ñun nag ñu wax Macky Sall bi yoon na bàyyi procureur ak juge yi ñu def seen liggéey ci seen teyu bakken yàlla dimbali nañu ba mel na ni on a été entendu parce que contrairement aux autres arrestations y avait même pas de procès fii procès am na jugé nañu leen atte nañu leen parce que l'article 319 parle de un an à cinq ans de prison léegi procureur daf ko dagg ci diggu bi demande na deux ans ferme voilà léegi nag verdict bi comme ni ngeen ko xamee c'est le le 6 novembre ah voilà bu léegi nag oustaz bi ma doon woo léegi il est de Malika daf ma doon laaj ndax marche bi da ngeen ko maintenir ma ne ko on maintient parce que xamuñu verdict gu 6 novembre bi ndax verdict gu tappale lay doon wala ndax dañ leen di bàyyi bu ñu leen di bàyyi ñun ñëpp dañuy wàcc ci mbedd mi def marche incha allah voilà léegi euh, on enchaîne sur quoi hmm. damay gërëm suma grand frère sëñ Modou Lo Ngabou le leader de l'association islamique Safinatul Aman euh, am na woyof gudday ni jël téléphone am woo ma ginnaaw bi ma alerté TFM ak euh, Walfadjri ak yeneen seenu télévision di naqarlu arrogance bi association LGBT France am soldaaru l'islam bu day ni sëñ Modou Lo ay góor jigéen naan dañ koy porter Euh, loolu daal di ko touché mu woo ma ndax euh, moom jarol ñu di leen expliquer ndax fekk ngeen lépp moom dafa jël Touba def ko ci xolom ba jaral ko mu créer cette police des mœurs gis ngeen liggéey bu am solo bi muy def chaque fois bu ñu dëgmalee màggal moo ko waa Safinatul Aman dañuy investir les marché les luuma di interpeller même les marchands ambulants pour dem à la recherche des produits yi nga xam ne sëñ Touba moo ko tere ne bu ko kenn dugal Touba muy poone bi di sàngara si ak drogue bi liggéey bi ci saafinatul amaan di def avec à leur tête sëñ Modou Lo Ngabbu foo ko natt rek ci efficacité weesu na ko yemuñu ci loolu moom sëñ Modou Lo Ngabbu col yu bon si Touba ay jupe yu gàtt yi ak yeneen ak yeneen yoo xam ne dëppawul ak l'islam ak charia def na ci liggéey bu am solo nangu na fa ay sabar ay boîte à musique ñu di ko indi ci dëkk boobu nga xam ne jaamukaay yàlla la kooku mooy sol euh, euh, euh, sëñ Modou Lo Ngabou di mujahid bu mag di soldat l'islam bu mag maa ngi ko doon tooñ téléphone sax ma ne ko dama bëgg bu coow lii passé nga ànd ak Jamra ñu créé ay cellule saafinatul aman Tiwaawan Njaasaan Canaba Ñaseen Medina Baay Laayeen famille Omarienne xëy na duñ ko tuddee saafinatul amaan waaye ku ne nga seet noo koy tuddee cité religieuse bu ne dafa war am une police des mœurs parce que bu fekkoon ñoom dañuy yem ci takk say Kaolack yem ci ñëw Sacré-Cœur di fa takk eh, ñaar fukki góor jigéen ak juróom di fa takk mariage ñu mën a wax mais léegi dañuy dem cité cité religieuse yi ñii bu ñu leen di seetaan dañuy xëy lal bâche di gàmmu ne góor jigéen baax na ñëw leen ah, ca bëgg yaatal seen kaw foofu lañ jëm de alors léegi lan la góor jigéenu France yi reproché sëñ Modou Lo Ngabou dafa am beneen euh, kuréel bu mu jiite boo xam ne bokkul ak saafinatul amaan waaye ñoo ñoo bokk taxawaay ay góor jigéen yu newoon Touba di fa ndaataata lax di def nu leen neex ñoom ñu xëy nag lala leen dëgg sërëx jàpp leen pamti pamte leen génne leen Touba ñooñu ñoo dem porter ji plainte dañu woo seeni doom bàjjenu góor jigéen ya nekk France jooytu ko ñooñu daal di jóg bind lettre le ministre de l'intérieur bu France daal di ko ñaan ne ko dañu bëgg sa naataango ministre de l'intérieur yi nekk au niveau des vingt-sept pays membres de l'Union européenne nga saisir leen pour que sëñ Modou Lo Ngabou ak képp ku taq ci moom ñu déclarer ko persona non grata dans tout l'espace Schengen maanaam xañ ko visa France xañ ko visa Espagne xañ ko visa Belgique ak pays européens yëpp ma ne ko sëñ Modou Lo bul jaaxle bul jàq bul tiit ñoom nee nañ dañ lay xañ visa góor jigéen ñoo lay xañ visa visa sëñ Touba moo ëpp junni yoon doole visa góor jigéen kon léegi nag je vous annonce que wax naa sëñ Modou Lo Ngabou ne bu ñu gàmm ba noppi dañ fa bëgg def délégation waxtaan naa ci ak euh, oustaz Makhtar Sarr bu Axiru Zaman waxtaan naa ci ak euh, oustaz Adama mbub bi bokk ànd sàmm jikko ba pare bokk tamit ci comité de défense des valeurs morales nous sommes 48 organisations côté Tivaouane waxtaan naa ci ak oustaz euh, euh, euh, nu mu tuddati El Hadji Aliou Dia qui est le président de l'ONG Daaral Quran wal Ihsan am na ñeneen ñu ma desee ñu demee ni Mamour Fall le président de la convention des Tidjanes waaye xam naa balaa gàmmu gee jot ñoom ñëpp dina leen contacter dañu bëgg bu gàmmu gi passé en forte délégation on va appeler toute la presse ngeen ñëw ñu filmer ko caméra ko média fekke ko pour góor jigéen yi xam ne kii ñu laal kenn du ko laal di sëñ Modou Lo Ngabou pour góor jigéen européen xam ne sëñ Modou Lo Ngabou weetul ci xeex bi incha allah voilà kon foofu lañ ci toll dañuy xaar euh, nit ñi jóge ci euh, euh, itte gàmmu gi bu boobaa ci la ñuy gën a am jot alors ci la ñuy programmer voyage bi à Touba incha allah ah dañ leen dooleel wax naa ko Aly Ngouille Ndiaye xam nga amoon na fi temps euh, bi Wally Seck porté plainte euh, oustaz euh, Mouhamadou Makhtar Kanté Jamra dafa mandaté imam Massamba Diop mu dem ci Pikini naka la seen plateforme bu tudd sax Pikini xaw ma naka di waaw mu dem ci waa Pikini ne leen plainte bi boo leen koy déposé dinañu génne liste góor jigéen yi waaw ba imam Massamba waxee loolu nga gis ñu naan eh Jamra ñu ngay showati rek yoruñu liste yoruñu dara ca laa def benn déclaration bu tàng Aly Ngouille Ndiaye dégg ko convoqué ma ñaanu ma ko jans de son son euh, kii nu mu tuddati le secrétaire général du ministère de l'intérieur Ibrahima Sakho moo ma woo ne euh, ministre bi dafa dégg daal ngay wax ci média yi ne ñun ñoo jox récépissé góor jigéen yi mu ne woon da ngeen bëgg dafa bëggoon ngeen mu ñëw ngeen waxtaan ci ma ne ko loolu day sawar naa ci ma dem maa ngi ñëw yoon dañ may yox seen whatsapp ma yónnee leen en en PC euh, ma yónnee leen ko boo def montage bi ngeen wan ngeen gis ngeen wat gis sama face à face ak Aly Ngouille Ndiaye ba ma demee gàngooram yëpp a nga ko toog les plus hauts gradés du ministère de l'intérieur ñu nuyoo mu daal di ma dalal ñu toog maak moom fassa à ne waaw dañ dégg nga ne ñun état ñoo jox euh, euh, euh, góor jigéen ñi ay récépissé waaw en tout cas man Aly Ngouille Ndiaye bi ma biñ ma nommé ci poste yi ba léegi daal loolu nga wax daal man gisuma ko man man mosuma jox góor association góor jigéen récépissé ma ne ko waaw nee nga yow personnellement Aly Ngouille Ndiaye mosoo jox góor jigéen récépissé bravo mais ñun Jamra duñu personnaliser nos combats dañu wax ni place bii nga toog te mu tudde ministère de l'intérieur joxe ngeen neuf récépissé góor jigéen ak lesbienne ci nguuru Ablaye Wade nguuru Macky Sall joxe ngeen sept récépissé góor jigéen ak lesbienne sept plus neuf ñaata la du seize waaw mu nga loolu la mu ne ah loolu daal man daal jaaxal na ma parce que euh, euh, ñun euh, kuy ñëw di demander récépissé moo xam pour créer un parti politique pour créer un syndicat wala une association sportive et culturelle dañuy def enquête a priori dañuy def enquête de moralité kon xaw ma ñoom fan la ñuy jaar ba am récépissé pour homosexuel ma ne ko d'accord yéen da ngeen di def enquête de moralité mais a priori waaye ñoom bu ñu xësee ba jot seen récépissé ba wan leen ginnaaw li li manqué Sénégal y a pas d'enquête a posteriori pour xam ndax ñoom la ñu déclaré woon ba nax leen ba am récépissé ndax dëppoo na ak la ñuy def sur le terrain loolu moo fi amul mu ne ma ndax am nga ci ay cas ma ne am naa seize cas yoo xam ne yéen a leen jox récépissé waaye danaa la jox ñett li ci des da nga may jox sa adresse email bu ma eggee kër ga ma envoyé la lépp mu daal di ma jox adresse email am nee ma kon échantillon bi nga may jox ban la ma ne ko bindal association bi gën a dëgër fit te gën a ñàkk jom des seen président Diadji Diouf la six cent trente six cent cinquante membre góor jigéen siège ma ngi fii ci parcelle ñun ñoo def exprès bañ a joxe adresse précise bi ndax di nga gis ay dof yu xaalu dem taal ko rey fay ay nit numéro de récépissé donné par l'État du Sénégal 15 numéro 15 444 date de délivrance bi temps la euh, lieu de délivrance bi temps la délivré par qui la DAGT la direction de l'administration générale du territoire moo ko signé <laughs> kooku c'est un c'est un démembrement du ministère l'intérieur deuxième échantillon d'association góor jigéen autorisée par l'État prudence parce que bii ma jëkk ko wax Diadji Diouf mooy président bi si ci topp di prudence Jamil Bangoura mooy président bi adresse SICAP numéro de récépissé temps date de délivrance temps par qui la DAGT la direction de l'administration générale du territoire troisième échantillon bi ma lay jox monsieur le ministre mooy góor jigéen yu jigéen yi yéena leen jox récépissé muy sourire de femme présidente ba ndey Kébé xale yu bari moo leen yàq ci dëkk bi yi gisoon ngeen scandale bi fi amoon damay bañ tudd lycée des jeunes fii bi pour bañ a ternir seen image benn euh, euh, vidéo bu gàtt bu doon def le buzz dans les réseaux sociaux ay xale yu am 16 ans di def des actes de lesbianisme en pleine école pana la récréation dañu làqatu ci benn ginnaaw mur di ko def ñooñu ñoo leen yàq ma ne ko ñett yooyu laa jox yi ci des nag bu ma demee kër ga yónnee la ko su ma la ko yónnee boole ci ay dossiers confidentiels yoo xam ne joxoo ma ko laajoo ma ko pour jox la preuve ne récépissé yi dégâts yi muy def ci dëkk bi bokk na ci yéen a may góor jigéen yi doole ñuy dem ci ambassades yi di fa am ay financement alors kon nag euh, lu indi woon question bi sax ah waaw waaw doon laaj amul ñeneen si ginnaaw donc loolu c'est inadmissible un état buy bàkku ne oui j'ai l'article 319 qui condamne les actes contre nature de un emprisonnement de un à cinq ans amende de cinq cent mille à xaw ma ñaata million état bu yox loolu ba noppi Macky Sall la taxaw ak ci Obama ne du ma daganal ngóor jigéen premier ministre Canada ñëw fii Justin Trudeau mu ne ko du ma daganal ngóor jigéen état buy wax loolu ba noppi di jaar ci suuf naan góor jigéen ñëw leen ñëw leen am leen ay ay seen lija seeni i diplôme nii c'est donc loolu laa wax euh, mise de l'intérieur alors mu ne ma waa d'accord waaye jox nga ma ay preuve et tout ça waaye xam nga xel demul ah muy man wala ñeneen ñi ma jiitu ci place bi euh, un regroupement d'homosexuels ñëw ne dañu bëgg a récépissé euh, de reconnaissance officielle ñu di leen ko jox loolu xel demu ci ma ne ko eh, loolu kay xel demu ci ñoom du ñu def loolu ma ne ko fi ñu leen naxee fi leen góor jigéen yi naxee ndax ku bëgg ce document de reconnaissance officielle même docu dossier lañ lay laaj bu dee parti politique nga bëgg a créer ginnaaw statut yi règlement intérieur yi am na benn document bu ñuy wax la déclaration de l'objet social soo dee parti politique nga ne li ko tax a jóg c'est la conquête démocratique du pouvoir l'approfondissement de la démocratie bu dee da nga bëgg a créer syndicat nga ne sa pour défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs loolu ngay wax ci déclaration d'objet social bi da nga bëgg a créer équipe bu nawetaan xandaaloo Grand Dakar ak tout ça nga ne bon c'est pour participer à l'expansion du sal bi ah dañu ne ku nekk ak li salay kenn ki dafa ne waaw euh, c'est pour venir en aide aux personnes du troisième âge qui sont souvent confrontées à des problèmes de santé léeg-léeg ñeneen ñu naan c'est pour assister les veuves qui ont des problèmes pour éduquer leurs enfants ratatata gis ñeneen booboo ci ëpp nag c'est pour venir en aide aux victimes du sida parce que boobu mooy feebar bi leen gën a yeb ñoom alors xam nga des objets sociaux aussi nobles un ministre de l'intérieur quel qu'il soit ku mën ci ñëw wax la loolu les yeux fermés da koy jox récépissé ma ne ko nag foofu lañ leen naxe foofu la ma waxee ne ñoom dañuy def d'abord enquête a priori ma ne enquête a priori baax na mooy bañ leen di déclarer ne lii moo leen tax a jóg waaye amul Sénégal amul enquête a posteriori parce que nit ki bu ñëwee wax ne lii moo tax ma créé lii nga enquête ko ba xam ne dëgg la ci moom jox ko récépissé bu la wanee ginnaaw da nga koy may bët xool sur le terrain ba xam ndax la mu waxanteeg yow dëppoo na ak la muy jëf amul Sénégal moo tax góor jigéen yëpp ba ñu naxee état ba état jox leen récépissé ba war ba état wan leen ginnaaw dañuy dem di ci def loo xam ne ça n'a rien ak la ñuy waxanteeg état. mu ne ma ndax mën nga ma citer benn ka ci leneen lu ñuy def te ça n'a rien ma ne ko waaw mën naa la citer benn c'est avec la complicité de l'ambassade du Canada ñoom dañuy jóg bind fi benn circulaire xam nga les ambassades occidentales quoi qu'on dise ni ñu amee service de comptabilité de protocole qu'il le veuille ou pas am na benn service de renseignements généraux waaw ñoom dañu am la liste de toutes les ONG muy waar Waradoog Amnesty et cetera Jamra y' a beaucoup d' ONG des des centaines d' ONG ñun ñu ngi ca liste ba ñoom liste bi mu ngi seen base de ñoom ñu daal di jóg def benn communiqué ambassade Canada c' était en 2014 daal ne waaw yéen borom ñaari tur yi dañ leen xaw a sonnal vous avez des difficultés pour accéder à aux emplois salariés vous avez des difficultés pour. Euh, accéder a des financements de projets waaye na seen xel dal ñun Canada créé nañu le FCIL le Fonds canadien d'initiative locale autrement di ku am kuy euh, yéen borom ñaari tur yi ku ci nekk sa kuréel bu amee un projet ki est crédible à condition que nga am benn récépissé de reconnaissance officielle am na commission bu koy étudier si le projet est crédible ñu financé la loolu moo nekk ci note de service bi ambassade Canada envoyé ko à toutes les ONG Jamra jot ko foofu la leen yàlla weere ma daal am la version originale ma ne premier ministre bi nag Aly Ngouille Ndiaye danaa la ko yónnee ma ne ko ñun ay sénégalais lañu bañuñu benn organisme extérieur di dimbali euh, jeunes yi ne fii ndax ñëpp xam nañ ne dëkk bi dafa metti yaa bu kenn xamul ñaata jeunes diplômés qui sont au chômage ñii dañuy dem di obligé di dem seras di fa jaay yàpp di dem maîtrisard en sciences économiques donc dëkk bi metti na kon bañuñu ku jóg mais yaa ngi dimbali doomu réew mi mais ambassade Canada euh, euh, maa ngi lu ma doon wax waa Canada la ambassade Canada defin bi defin bi ma ko defee moo ñaaw parce que bu ne woon bon ubbi nañu euh, kii bi budget bi pour financer jeune bu mu mën a doon boo amee projet si Ségiri Ndiaye waxuñu loolu dañu ne boroom ñaari tur ku ci am projet seen association a condition nga am une existence légale am na commission bu koy étudier si c'est crédible ñu financer la c'est un clin d'œil malsain qui peut être mal interprété par seeni doom ak sama doom ak seeni jarbaat ak suma jarbaat seeni rak parce que di nga ci gis jeune bu jàmbaare daa dina ah man day bi ma amee sama sama bac wala sama licence ba léegi wut naa visa ba sonn aw ma wut naa financement de projet donte le benn sagaru cent mille francs la aw ma kii nee na ku bokk ci kuréelu góor jigéen ñi mu financé la waa man tey maa dem bokk ci kuréel yi c'est ça le danger kon nag c'est un appel indirect boo xam ne la ko indi mooy récépissé yi état bi jox góor jigéen ñi moo tax ambassade yi di jëflante ñoom ma ne ko kon monsieur danaa la yónnee toute la documentation bien que laajoo ma ko pour confirmer li ma la wax ne récépissé yi la muy yàq ci dëkk bi moo ëpp lu muy defar waaw ma ne ko am na yeneen yu bon nag yu récépissé yi di def fii ci sali ñu ngi koy enquête pareeguñu association góor jigéen yi def di racolage di joxante ay rendez-vous ak màggetum góor jigéenu tubaab hollandais belge te kenn nobatu leen ñu ñëw fii vacances association góor jigéen yi la utal ay far ay xale yu am vingt cinq ans ki trente ans ma ne ko kooku ñu ngi ciy liggéey bu dossier bi pare danaa ñoo jox la ko alors ba loolu amee parce que da ma doon laaj ñan ñoo leen di dooleel loolu ci leen di dooleel la bokk te ñu ngi demander à travers vos plateformes yéen waa sans limite ak Dakar Buzz ak keneen ki nu mu tudd waaw maa ngi leen di ñaan maa ngi jaarale message ci président Macky Sall ñu ngi koy remercier ndax suñu plainte bi àdduna ci parce que le kii moo ko waxal boppam le directeur des libertés publiques c'est un démembrement du ministère de l'intérieur ñu di ko wax Ahmed Fadel Kane moom moo wax ne jot nañu ndigal ci président la république pour ñu ubbi enquête ndax leeral les condition de délivrance de ces récépissés kon loolu déjà ñu ngi koy rafetlu waaye ñu ngi demandé Macky Sall na si wane fulla gii mu wane ci euh, ñaar fukki góor jigéen yi nga xam ne kenn naru leen woon jugé jugé nañ leen ba fëgg leen deux ans verdict bi ñu ngi koy xaar le six lii tam na ci def fulla ñu enquête ba xam kan moo jox góor jigéen yi récépissé yi ak lu tax mu jox leen ko parce que amuñu ci droit pourquoi parce que c'est une violation du code des obligations civiles et commerciales parce que code boobu moo tëral ñan ñoo am droit récépissé mais góor jigéen amu ci droit et c'est en contradiction avec l'article 319 qui condamne les actes contre nature donc deuxièmement faux et usage de faux la parce que ñoom ba ñuy def seen déclaration d'objet social neewuñu góor jigéen lañu jamais wax naa leen ko sànq dañuy naan dañuy dimbali kii yeeg veuve yeeg dañuy dimbali les personnes âgées dañuy dimbali les euh, malades c'est des déclarations mensongères parce que loolu c'est pour nax état bi ba jot sa récépissé nga wëlbatiku di utal ay màggetum góor jigéenu tubaab ay client fii ci Saly mbaa nga dem di naxi ambassade pour am financement voilà kon nag li nga wax c'est vrai euh, lii tant que fajuñu góom bi à maanaam ñi leen di dooleel ci état bi tant que bàyyiñu dooleel bi ñu leen di dooleel lii du fi gaaw a jóg alors léegi nag ñun on va mettre les bouchées doubles parce que gàmmu daaw bi sëriñ euh, Babacar Sy Mansour lors de la cérémonie officielle bu Mawlud 2019 le 9 novembre 2019 vidéo baa ngi circuler dans le net ba léegi waxi fulla la waxoon état bi Aly Ngouille Ndiaye a ngi toog muy naqarlu la prolifération des actes et des provocations des homosexuels et des lesbiennes alors moo tax nag bu li jeexee bu ñu jógee ci sëñ Modou Lo Ngabou je vous je vous en informe Jamra ngi préparé une tournée nationale avec des dossiers et des documents alertés xalif généraux yi wax ko ne am na ñuy jàppale góor jigéen yi bëgg toroxal Sénégal bëgg aligner Sénégal fii Gabon tollu tey ndax xam ñan ne Gabon le 29 mai Euh, juin bi passé lobby homosexuel yi lii xew Sénégal fa la ñu tàmbale di def ay mariage nit ñuy coow bàyyi ñuy def ay yu sew nit ñi coow bàyyi ñuy fob ay kaye di ci dessiné góor ak góor ñuy fóonante ñu di koy jaay ci école yi ak drapeau LGBT yi mooy t boobu Wally soloon ñoom ñu di ko def ci euh, couverture kaye yi et cetera muy dem di dem di dem ba nekk une banalité Assemblée nationale bu Gabon woote na la loi de légalisation de l'homosexualité waaw dañuy ñëw nag ba yëf yi ne rëll suñu kaw ñu naan ñu eh, mu dem yëf yaa ngi raam république centrafricaine légalisé na ngóor jigéen île Maurice nañ ko Cap Vert bii ñu jege sës rek légalisé nañ ko alors bu ñu def tournée bi nag yooyu yëpp dinañ ko wan xalif généraux yi pour ñu xam ne lii du ay wax yi caaxaan góom la boo xam ne mu ngay law di yàq ci Afrique on va les informer je vais donner aux khalifes généraux les photocopies des récépissés de reconnaissance des góor jigéen yi état bi jox association góor jigéen yi ko jox xalifa yépp waaye ñu ngi commencé ci wax naa leen ko sànq parce que moom moo def jàlloore bu rëy ci gàmmu daaw bi sëñ Babacar Sy Mansour yëkkati kàddu jaar ci digg bi voilà kon nag combat bi day continuer déjà am nañu victoire parce que kenn mësu leen jugé jugé nañu leen parce que yi yi yi passé yëpp dañ leen dañ leen dañ libéré de manière scandaleuse alors donc le combat va se poursuivre waaye nag combat d'information la euh, auprès des des autorités religieuses euh, combat de sensibilisation auprès des familles familles yi na ngeen téye seen doom yi famille yi na ngeen seen doom yi leen di tàggu anniversaire rek damay dem feek damay dem na ngeen leen surveiller parce que ils sont infiltrés par les lobby gis ngeen en 2014 benn xale bu tuuti à peine 16 fii ci Grand Yoff ne day organiser anniversaire benn waa sourire de femme dégg ko rek ñu lal plan nee ko foo ko bëgg a defee mu naan fii sama kër tante ak ñu ne déedéet kaa ñu luweel la le bar piano piano on paye tout ndekete ñu ngi bëgg a profiter ci loolu def seen caay-caay def seen jataay noonu lañ ko defee dañu tëj bunte yëpp nekk ci biir xaw ma lu ñu fa doon def waaye dégg naa sax dañ doon filmer ki ngeen xamul yàq ay doomu jàmbur ñun ñii ñoo informé la brigade des mœurs te maa ngi gërëm Frolance Mendy jigéen ju mën góor la mooy commissaire euh, brigade des mœurs jàmbaar la brigade des mœurs ba mu ñëwee jàppaleen cinq parmi les femmes arrêtées bañ leen laajee yan kuréel ngeen bokk nee nañ sourire de femme ñu ngi ñaan Macky Sall na dissoudre cette association lesbienne te muy yàq xale di sourire des femmes bi ndeyka bi jiite nañ ko dissoudre ndax moom tam am na récépissé au de quoi alors kon nag euh, loolu lañu bëgg a tàmbali xeex bi Touba bu ñuy rendre hommage à sëñ Modou Lo alors bu ñu fa jógee bu ñu ñëwee Dakar ba noppalu ko nag wax naa leen ko léegi on va faire une tournée nationale jox ay documents xalifa généraux bu ko defee xanaa nag ñoom ñu jóg jël ko à ko le voilà parce que il faut pas que mbir mi nekk affaire Jamra rek ndax Jamra rek mënul dara. voilà yéen déjà yéen a ngi nii à votre façon yéen ngi jàpp ci mbir mi pour ñu war a sàmm suñuy valeur protéger suñuy doom wax naa nag ñiy xeex nañ jël seen matuwaay ñoom Adama Mbuub ñoom kër Mbuub bu ànd sàmm jikko yi ñoom min Serigne Bassirou Mbacke Cheikh Astou Fall ma ne leen jël leen seen disposition ay ay ay bandi la ñu amal affaire. naa ko yow da nga tàmm foo gaaree sa oto wàcce vitre day yéegal vitre mën nañ fa tëmbal benn paquetu cocaïne woo police daa ne xoolal waa sàmm ji koy seen la mu ñu nekk jaay drogue na ngeen surveiller seen doom yi attan nañu jóg créer benn affaire de toute presse daa dina eh gis nga doomu Maxtaar bi coow naan ay la dégradation de doom ja fanaan day fanaan ca auberge ils sont capables de tout de tous les complots nag alors man na leen nag téye leen seen doom yi téye leen seen njaboot moo tax man ma rocci sama doom génne ko Sénégal voilà pour que mu mën a sori les champs de bataille de son père ndax euh, combat yi ñu dëgmal ci kanam combat yu metti lay nar a incha allah